Euh, orientation bi at yëpp ñu ko euh, à partir du mois d'octobre, ba ay mai ñun nak bi ñëwé dañu dañu bëgg ak DG euh, professeur Thiaré ñu orientation bi bu bac bi jeexee rek ñu presque promesse tenir parce que le 14 août lancé nañu processus orientation Maintenant, étudiants yi war bacheliers yi war nañu commencé process pour nous orienter Nous bëgg nañu processus bi mu mu jeex euh, bu vraiment yàggee ci fin octobre donc euh, loolu en tout cas moo kon suñu bébét je pense que ñu qui ciy liggéey ni loolu permet, ñu permettre ñu amaat calendrier universitaire bu normal donc euh, euh nañu université ñu dimbali ñu ñun ñëpp ak sinéri pour que li ñu bëgg noonu mu comme ni ma waxee ne université yi dañ doon jàmbat ne bu ñu étudiants mois de mars <laughs> day fekk ni ñoom sax pare nañ presque seen premier semestre wala boobaa dañ koy obligé reprendre donc loolu moo tax ñu bëggoon vraiment université bu nek nga bachelier à partir du mois d'octobre, comme ça nga commencer sa année normalement loolu lañ bëgg te gëm nañ en tout cas euh, commission bi war nañ ko am xam nga président dafa instruire euh, pour le moment ñu jël suñu bachelier yëpp yóbbu ko ci suñu enseignement euh, public parce que bi ñu commencé processus ak privé dafa amoon ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu il faut ñu jàngat ko xool lan moo ko indi woon bu mun ko saafara mu ñu door a delluwaat foofu donc pour le moment année bi aussi euh, suñu bachelier yëpp ci suñu enseignement supérieur public la jëm. jafe-jafe yooyu Université Dakar ak Ziguinchor ñoo ko amoon. wante xam ngeen ne léegi nag yàlla daf ñu may ne ak xarala yu bees yi euh, enseignement à distance mu ngi développé wu donc ñoom université de Dakar en tout cas euh, am nañu euh, xarañte ci loolu ñu ngi ñu ngi koy def gëm nañ ni loolu aussi yeneen université sax ñoom ñëpp dañ ci war a jël comme université numérique donc waxtaan nañu ak ñoom en tout cas gëm nañ ni li ñu leen bëgg a yóbbul ci étudiant war nañ ko mën a attan